ba tax ba man Babacar xam naa ne ma war raw ba tax ba man bakkar xam naa ne ma wara raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma teral murit bu sab sang nekkee bis fi mbarabam bul dem ni jëw te diisoo ba dee fi ñëwul murit bu sab sang nekkee bis fi mbarabam bul dem ni jëw te diisoo ba nee fi ñëwul diisoo rafet na ku diisoowul mbiram du rafet ku ñëw ni jaww te diisoowul ni bukk lemal waxee salaamun aleykum ñetti yoon te taxaw ba dégg ne fi mbaa nga dégg ñëwal njegam nuyoo nga te déggoo kenn wax dara nag xanaa sa xel maa ngi ànd ak yow dafoo xalamal nuyoo ngi def xeeti xeetit nag yu wóote ba dee toqat nuyoo la joxe lëf am nuyoo la xamal yëngus lëfëg yëngalus lëf am nuyoo la ba tey tiflim nuyoo la nuyoo yaa ngi ni gàññi fabal xeetu nuyoo woo ci fam nag def nga yow lu rafet lu dul ni ñëw wu ci kaw aw nit te kenn yëgul muyit bu ab sëriñam nekkee ku nit fi barab te xam ni woowu ko day yëgloo ko diglu ndigal murit du waaxu ni jol lay fekk ab sëriñam caas mbarab su ko kenn woowul di xoole ni pël te sang boo ko bëggee gis nag te yombu la yow te gii na lal ña ca jëm yóbbante leen ni alal ku ñëw fi ak bën mar day yónni baaga ki goj ca ndox ma baaga gocay may nit ca ndox ma asal ku jëm ci sab sang gaawal may ko aajo bu wér fajal ko aajo bu wér kon lee ñu woo la dëggal sunub sëriñ yal na nuy baagam te déeb gojamit te dig saxaaram gudul tardee ka yéexalu xel te yal na waa mi mbégam yoo xam ni dootuñu dog noor ak nawet sax ci nun nuy sax ci mbég di saxal te yal na nuy jañi taw fee xam ak yi ngërëmam faw ak nawet yu ñu baaxal yuy seral sunu xol mboolem lu nuy ñaan akay bay yal na nangu bu wér nu mucc ciw maral ak ñor barke bokkunu dal buur ak ñoñam yal na seeni xol di sedd ci nun ba saa su jot bëkk néegam ñëw di wax ni ñëwal buur ak ñoñam yal na seeni xol di sedd ci nun ba saa su jot bëkk néegam ñëw di wax ni ñëwal. kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko ki am te du jeexal. waaw alhamdulilah. noo koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkkoon a ak moom nu tàbbi ca ñoom ànd ak ñoom jëm fu jëm mu jëmee nu fu ñu fu fam lañ jëmee